Pawlish jël ko def ko ci ngembam génn na Pawlish Mbaye ak Mbaye <laughs> Mbaye Kouthia Pawlish Mbaye moom lay luqi da yow <laughs> Pawlish Mbaye ak Mbaye Kouthia abi sifle waat na ci diggante Mbaye ak Pawlish eh door na ko door na ko daw na daw na daan na ko. Eh, la Pawlish door na Mbaye da <laughs> de xamul lu xew fi mu nii Pawlish Mbaye daan na Mbaye Pawlish daan na na.